ñi ñoo réew nit ñi di couvre-feu ñuy la illa en plein couvre-feu non am mi dinaa ñoo réew tot waaw HLM raay bi lañ nekk nii gars yi ñoo nekk nii tal pneu yi ne bi daal la ñuy bañ HLM raay bi ñoo nekk nii waaw nee nañ dañoo sonn si couvre-feu